sensoon nañ lool lool sax xel bi moom des fois gars yi bu commencé yëngu kii bi rek man far damay bàyyi sama place daw si biir marché bi marché loolu du yoon mali journée moo ma am yaram am yaram la li ñu gën a sonal fii daal mooy mbalit bi daal moo ñu sonal ci marché bi su loolu passé ak sàcc daal sécurité bi ñu sonal ci marché bi la pas normal client yi sax nangutuu ñëw ndax mbalit bi mbalit yi sonal na client yi jàppale ñu pour mbalit bi quoi lii baaxut oto yi lii gasoil bi seen c'est pas normal oto bi oto yaa fi nekk nii ku ñu mën a dimbali ñu jël gasoil bi cher na te te lii daal baaxut moom alkaati sonn na ñu teg ci c'est pas tamit moom c'est pas normal. dund bi nag cher na jamono bi métti ndax bi ma saamee ba léegi gisuma ku jënd te lii dañ ko daan jënd waaye léegi ku tal loo ne siiw loo añe doo tal dessert

Sénégal doy na doy waar goo xam ni jeunes yi amuñu liggéey déjà loolu c'est pas normal jeunes yi amuñu liggéey xam nga bu dul dëkk bi tamit agression yi bari nan parce que ñàkk liggéey moo ko waral loolu c'est pas normal xam nga gars yi nan jéem a xaalis bi ñuy jël di ko yàq milliards yi ñi ñuy dégg te mënuñu si gis dara nan ko def ay usines jeunes yi liggéey. marché bi dafa salte dañ ko war a defar xam nga tamit fu ñuy jaayee ñam dafa war a set war a am xet bu neex mais ñoom ñàkk pexe xam naa moo tax ñu toog ci biir salte bi ñoom ñi koy noyyi sax xam nga baaxul ci ñoom ñun ñii dañuy forcé ñëw jënd mais il faut ñu ñëw jënd loolu tamit lu ñu war a boole la loolu ba ñuy wax seen assemblée bi waroon nañ ko boole bu ñuy balee marché yi defar ko parce que kenn mënta wax gi génnee ci marché ci marché la ñuy jëlee lu ñuy lekkee kon propriété premièrement marché la war a doon. man moom lan moom a gën a metti ci dëkk bi mooy affaire sinistre. man me prend droit au cœur parce que xam parce que sinistré depuis 2005 mais yàlla dimbali na ma man am naa kër mais dama gis biir jaxaay ay kër yu bëri bëri bëri yoo xam dañ ko comprendre te nit ci ndox depuis 2005 ñu toj seen kër mënuñu leen jox ça c'est pas normal loolu nag la gars yi war a xoolaat te ñëw jaxaay man jaxaay laa dëkk sama mat na 200 am na karo defar nañ ko ba mu nice mais pourquoi pas mënuñu ko libérer nit ñi. xale jigéen ñi ñu bàyyi sol yi ñuy sol comme sama saari daal ñuy sol daal di ko yiwal daal ndaxte nee nañ tubay sa aayul wante bu yiwee rek baax ñu di ko xëcc dara du feeñ ñu sol sol bu yiw. làmb jaa ngi dèjà mu ngi commencé am problème loolu c'est pas normal mbër yi liggéey lan yaakaar bu naa nu amatulee liggéey agression bi day gën a bari yooyu yëpp c'est pas normal. ba pare am na leen lu ma méttiwaat jaxaay. mooy euh, bopp koñu jaxaay fépp fi nga xamante ni bopp koñ la dañ ko jaay ay nit quoi ay boos ñu ñëw tabax ko ay étage ah ti ta rencontre xam nga loolu jaaduwul dëkk boo xam dañ ne c'est pour les sinistrés ñu jaay ko ay boos fépp fi nga xamante bopp koñ la rek ñu jaay ko patron ñu ñëw te ko troisième étage mais loolu sax beneen affaire la quoi mais man li ma bëgg a gën a lancer mooy su nekkee gouvernement bi ni ñuy dégg ñu jël waa jaxaay kër yi nekk jaxaay te xam libéré ko ñu ñëw jox leen seen kër yi quoi médias yi fi nekk duñu wane lu baax dañuy toujours dañuy perturber doomu adama yi loolu c'est pas normal ñu li ñu bëgg daal mooy ngeen tegal ñu action yu am importance muy yéen muy keneen parce que li fi yàq doomu adama yi léegi moo bari ci yëpp ci média bi lay jaar li dañuy wax ni média lu baax ci dëkk moo ko baaxal lu fa yàq moo ko fa yàqal ñun marché bi lañ am amuñ lan lurut marché bi ci dañuy góorgóorlu ci ñu yëngatu comme ça secret bi nga xamante ni moom lay lay wax dafa nekk loo xamante ni lu am solo la si ñun comme ça ngay jël sa alal bay ko ci marché bi ñëw do ko fekk da ngay ñëw di liggéey do mëna liggéey poussière balim balim balim mbalim mbalim loolu lépp war na nekk lo xamanteni ni war nañ ci mëna taxaw nan ñu may jamm ñu simbu waaw état bi na euh, na ci wax bu dee am na ci lum ci war a wax nañu bàyyi nu simb kon lamb bi ni mu amee doole Séné simb suñu culture la ñun dañoo war a am doole fii ci Sénégal simbkat yëpp laay kaasal nag ma marché bi la ñu war a ñi ko setal ku xëy marché ngay ñëw ñoom ñi sa lu ñuy lekk yëpp ci marché la jóge kon la euh, priorité première du Sénégal si seen assemblée bi keroog man dégguma ko gisuma fa sa benn affaire commerce ñoom lu ñu wax seen intérêt bopp mais ñoom askan bi ñuy wax dëgg moo leen ñor gis na leen ñor trop propriété marché daal mooy pays. c'est normal. c'est normal.